أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بوكي ني دلتي وات تيري بي الأخضري في صوب جديد الأخضري تي سول ملان بو خامني ملان بو بيس kon jëmmi dëre yi bi mi ngi fi waaye dañ ko solal ab malaan bu bees xam ngeen ni téere bu mën a doon boroom xam-xam yi ànd nañ ak seen farlu di ko dolli saraa di ko leeral ngir ñi nga xamante tin si seen xam-xam eggu fa buñ fi egsi seen dégg gën cee yomb kon ñu ñëw ci muqaddima bi muy alfaraid ak sunan al muakkad ak fadail mu tàmbalee ci ay farata ak sunna yu ñuy feddali ak ay ngëneel mabaadi sujudu sahwi mabaadi u sujudi sahwi maanaam principe yi nga xam ni moo nekk ci sujudu sahwi fi salaati wala qawaidu sujudi wi maanaam règle yi nga xam ni moo aju ci sujudu jamuj fi salaati xamsa wa isrina xaalatan juróom ñaar fukki mbir la juróom ñaar fukki mbir yooyu ak juróom nag mooy yi nga xam ni dafa maa yu jibu xabla salaam yoo xam ni boo ko defee xabla salaam war na ci ak yoo xam ni boo ko defee baada salaam war na ci kon mu mel ni ki bu doon circulation la boo jéggee bu rouge bu tàkkee da nga war a taxaw soo jàllee nag war na am sanction buñ la war a def pour nga mën a sa yoon mën a baax te mooy bu boobaa dafa am loo dolli pour nga pour sa jur sa jóot baax nag pour sa julli baax nag Fok nga nyari ñaari jot gannaaw ba nga taayaa ba pare su fekkente ni nag da nga aw ci yoon woo xam si waroo fa aw ci misaal masalan yoon bu ñuy tere nga aw fa ñu kon kat ci misaal war na am sanction buñ la jox pour sa yoon mën a baax kon da ngay sujjoot ñaari sujjoot avant ngay sëlmal kon daal ñu xam lan mooy xabla ak lan mooy baada xabla mooy avant ngay sëlmal baada mooy après bi nga sëlmalee ba pare kon mu am fi ñaar fukki mbir ak juróom yoo xam ni li jami salawaat julli yépp ñoo ko bokk moo xam julli farata la wala julli naafila la wala julli yow kenn la wala julli ànd ak mbooloo la moo xam julli naafila wala julli farata la fukki mbir yeeg ñeent moom li jami as-salawaat yépp ñoo ko bokk mu am nag isda ihda asara xaala yoo xam ni li salaati ma al imaami jamaa'iyan bu fekkee julli nga imam ci jullik mbooloo moo mooy tax règle bi loolu sujjóot war ci yow ci lax Laxdari bi nag mooy bee bi loolu abila bi la bee bi mooy sujjóotu qabli ñëw na ci asra xaala dix yoo mbir yoo xam ni bu la dalee war nga sujjóot qabla salaam see bi maa yu ji baada salaam liy waral baada salaam ñëw na ci Laxdari bi samaaniya wa isrina xaala vingt mbir yoo xam ni bu la jotee war nga sujjóotal baada salaam dee bi laa sujuda ala al musalli ñëw na ci arbaa wa salaasina hala 34 mbir yo xam ni bu la jotee war nga la la warul sujjóot warul ci yow laa sujjóot ala musalli axwaalul butlaan ñëw na sab'ata asara nyar ñaar fukki yoon nyar, juróom-ñaar yoo dale warung bu la dalee war ngaa euh, euh, euh, julli day mutilaatu salaat fi masibi malik ci ngir imam malik nag mu boole li laxdar yu indi ak yeneen téer yi indi radiallahu taala anhu ndax moom axwaalu botlaan bu dee ci der yu moom di sept la fi indi waaye buñ ko boole ak yeneen nekk na quarante xaala di ñeent fukki mbir yoo xam ne bu la ca dal si julli yàqu na asawu fi naafila jamu ci naafila ñëw na ihda xaalaat ñaar fukk ak benn yoo xam ne wu la dalee da nga war a sujjóot asalaatu wara al imam ñëw na tamit isna ashara xaalatan fukk ak ñaar yoo xam ne wu dale dalee da nga war a sujjóot xulaasa maanaam li ñu mën a résumé ci sa xaalaatu juróom-ñeent yi nga xamante ni si ci sikk sàkk la alwaarid fi kitaabi laxdar yi moom tamit ñëw na ci juróom-ñeent yoon salaatul istixlaaf mooy julli gu wuutal boo dee julli ba sa jàppa toj walla nga am ngànt masalan mu mënatul taxaw walla mënatul sëgg bu boobaa li war ci moom mu xëcc kenn mu wutal ko maa yukar fi salaat fi kitaabi laxdari li ñuy sib ñëw na nekk juróom-ñaari yëf yoo xam ni dañ ko sib ci xaalaat juróom yoo xam ni bu ñëwee ci julli dañ ko sib su ko defee tamit am na yeneen fukk yoo xam ni ñëw na ci yeneeni téere yu bokkul ci laxdari yu yoo xamante si moom tamit yi ñu ciblé ci julli أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ñu continuer ci sunna julli yi ñuy feddali sunna dafa am sunna suñu feddali ak sunna bu ñu feddaliwul sunna yi ñuy feddali nag juróom-ñett la wala lu faslun lii dalay teqale ay masala fi sunani salaati ci ay sunnay julli ñu feddali wa sunanuha julli al mu akkadati yadi ñu feddali bi ci jëkk mooy as suuratu saar allati bi nga xam ne baadal fatiha mi ngi ci gannaaw fatiha boo jàngee fatiha ba pare fatiha bi farata la taxawaayu faatiha bi farata la waaye saar bi nga teg ci gannaawam sunna la wal qiyaamu laha taxawaayu saar bi tamit sunna la wa sirru yalu tamit fii maa julli goo xam ni yu saru daa ñuy yalu fii ci moom kon julli gu ñuy yalu mooy tisbaar ak tàkkusaan kon yalu gi nga koy yalu yanu mooy wax ci suuf booy jàng jàng ci suuf boo xam ni yow rek yaa koy dégg saar boobu sunna la taxawaayu saar bi sunna la yalu bi nga koy yalu tamit sunne la kon ñetti sunna daje na ci wal jëru ak biral sunna la fi maa julli yoo xam yu jëru daal ñu biral fii ci moom julli gu ñuy wax ca kaw nga wax ci kaw loolu tamit sunna la wa samia la comme suba timis geewa yooyu boo jàng jàng ko ci kaw loolu sunna la wa sami allahu liman xamidahu ak sami allahu liman xamidahu sunna la kon dañ la ko tënkaatal ci tableau bi par benn par benn pour mu gën a jóge sag dégg kon ñu ñëw ci fadail julli wa fadailuhu ngëneeli julli raful yadey ni mooy nga yëkkati sa ñaari loxo indal ixraami booy kàbbar kàbbar armal xata tuqaabilaa xata tuqaabilaa ba ñu tolloo ñoom ñaar al usneyni sa ñaari nopp nga yëkkati sa ñaari loxo ba ñaari loxo yu tolloog sa ñaari nopp sa baaraam yi tàllalu tafaloo jëm kaw yëkkati goo ngay yëkkati sa loxo yëkkati googu ngëneel la ci julli boo ko bàyyee du tax nga sujjóot wa qawlul maamuumi ak waxu ku ñu jiite wal fazzi ak kenn ak julleem rabbana walakal xamdu rabbana yow suñu boroom walaka ñeel na la alxamdu cant bu dee yow rek yaa julli da ngay wax sami allahu liman xamidahu ba pare wax rabbana walaka alhamdu su fekkee da nga ànd ak ilimaan nag ilimaan sami allahu liman xamidahu rek lay wax yow yaay wax rab yow wax rabbana walaka alhamdu boobaa imaam du wax rabbana walaka alhamdu maamum du wax sami allahu liman xamidahu waaye bu dee ne yow rek laak si julli ñaar yëpp danga koy wax wata amin ak wax amin ba al fatiha ti gnaaw fatiha bo jang fatiha li fazi ñel kenn ak jullem wal maamumi ak kuñu jité budé yow rek yaay julli bo jang ba ik ci wala dallina da ngay wax amin budé yow rek yaay julli bu fekkenti ni nak da nga and ak eh, eh, imam la nak and ak maamumi boba nak ci ngir malik maamu maamu yi ñoy wax amin ilimaan mom bu waxe wala dalina ci jullik ya, biral du wax amin ci julli yelu nak dana wax amin wala yaquluha du ko wax nak al imam illa fi qiraati sirri du ci jullik yelu julli go xamni ci suuf lay wax comme tisbar ak takusan boba imam dana wax amin ndax ñi muy ñi jang buy jàng ñi ñi ci gannaawam dégguñu ko wa tasbihu ak saba fi rukon ci rukon boo nga wax subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi ñetti yoon wala juróom-ñaari yoon wala fukki yoon subhaana rabbiyal azimi wa bihamdihi boobu ngay wax ngëneel la ci julli soo ko bàyyee du tax a sujjóot wa duaaw ak ñaan fi sujjóoti ci sujjóot ngëneel la boo sujjóotee yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na fi jaam gëna jege boroomam mooy jamono yi muy sujjóot moo tax boo sujjóotee nga ñaan ngëneel la walla nga wax subhaana rabbiyal a'la bi bihamdihi ñetti yoon walla juróom-ñaari yoon wala fukki yoon loolu ngëneel la ci julli boo ko bàyyee du taxa sujjóot wa tadwirul qiraati ak guddal jàng sufi jullik suba jullik suba nga jàng saar yu gudd commencé ci tawaawul mufassal ñu ne mooy xujuraat nga jàng saar yu gudd ci jullik suba loolu ngëneel la wa zuhri tisbaar taliha dina ko méng tisbaar tamit nga jàng saar yu gudd waaye nag foofu nag lu ëpp ci ulama yi nee mooy bu dee yow rek waaye bu fekkente ni da nga ànd ak ki maamoom nag yonent sallallahu alayhi wasallam nee na ku jiite fal yu xafif lu tax inna fihim daif wal wasil xaaja ndax nee na ku néew doole nga ca ko maggata nga ca ko bare aajo nga ca ko mu leen da nga jiite daal li gën neena mooy nga woyofal julli gi mu digg doomu wa taxsiruha ak gàttal jàng fil asi takkusaan takkusaan nga jàng saar yu gàtt commencé wadduxee jëm suuf wa tawasutuha ak digg doomul ko fil isaay ci geewa bu dee geewa nag nga jàng saar yoo xam ni guddul gàttul kon yii daal mooy ngëneel li nga xam ne takku na nekk nag asuratul ula saar bu njëkk ba xabla saaniya mooy jiitu bu ñaareel bi at wala te mooy gudd ci moom saar bi ngay jëkk a jàng mooy féete kaw bi nga jàng te moo koy gën a gudd tamit looloot ngëneel la bi ngay jàng mooy koy féete kaw ca bàqara te tamit moo koy gën a gudd loolu tamit ngëneel la ci julli wal atu ak melowa al maalumatu ba di bu ñu xam fi rukon wa sujjóoti ak sujjóot melo woowu ñu xam te mooy boo rukon nga jël sa ñaari loxo tekk ci sa ñaari wóom sëgg-sëgg boo xam ni doo xoog gi doo sëgg sa gannaaw yem nga xam ne buñ ci sotti woon ndox dafay tasaaroo fépp sa ñaari loxo yi nga teg ko ci sa ñaari woom tas ko mu jëm suuf melo woowu ñu xam ci rukon ngëneel la ci julli wa sujuudi ak melo yi ñu xam ci sujoot te mooy boo sujootee nga bañ lal sa ñaari loxo comme xaj buy tëdd te sallallahu alayhi nee na bu leen lal ñaari loxo mel na xaj buy tëdd sa ñaari loxo yi day yëkkati ko jëm kaw te da nga koy yërelee da nga koy yaatal góor day yaatal jigéen day tafale day tafale tànkam tafale ay përëgam bu dee góor nag dafay yaatal yépp yaatal bu digg doomu su ko defee mu toog lem tànku càmmoñ ba bañ toog ci kaw tànk bi biir baaraamu déyam mu samp ko mu jëm suuf jëm penku ñaari loxo mu jël ko tekka ci kaw ñaari poojam bu dee ni taayawul bu dee ni day taaya mu bank ñetti baaraam yi tàllal ñaari baaraam yi baaraawu dëy bi ak baaraamu sànnikaay bi loolu tamit toogaay boobu mu toog ci melokaan boobu ngëneel la ci julli wal xunóot ak xunóot sirran ci yelu booy xunóot tamit nga wax ci suuf loolu ngëneel la xabla rukon balaa nag dagan na nag gannaaw booru rukoxee ba pare waaye nag li ñu gënal ci ngir Maalik mooy avant nga rukoo nga xunóot boo ko fàttee tamit boo siggi siggee mën nga mën nga xunóot wa duaaw ak ñaan baada tasahudi saani gannaaw taaye ñaareel ba taaye bu boo taayee taaye bu jëkk bi moom doo ci ñaan waaye gannaaw taaye ñaareel ba nga jàng ñaan gu mu mën a doon am na nag ñaan yu ñu fi teg rabbana atina fi dunya xasana eh, ak yeneeni i ñaan eh, ñaan yooyu ngay jàng wala ñaan gu la neex ngëneel la ci julli kon sunu yu feddali mi ngi nii sunu yu feddaliwul mi ngi nii mooy ngëneel yi léegi nag mu defal lekk ci benn tableau pour mu gën a yomb mu ni jadwalu faraidi salaati wa sunani al muakkada maanaam tableau bi nga xam ni ci la fara farate julli yi nekk ak sunna yu ñu feddali xoolal tableau bi premier bi mooy anniyatu yéene waxoon nañ nan koy defee ak fi nga koy defee takbiratul ihram kàbbaru armal kàbbar nag mooy allahu akbar yëkkati sa ñaari loxo yi loolu ngëneel la waaye allahu akbar bi mooy kàbbar allahu akbar boobu ngay wax nag mooy deuxième bi faratale ci julli bi ci troisième bi mooy alqiyaamu lahaa taxawaayu kàbbaru armal faratale ci julli quatrième mooy qiraatul fatihati jàng fatiha farata ci julli cinquième bi mooy alqiyaamu laha taxawaayu jàng fatiha farata ci julli sixième bi mooy arukon sëgg jàpp ci say wóom farata la ci julli arafu minhu yëkkatiku bàyyi ka ca sëggaay ba farata la ci julli huitième bi mooy asujoodu sujood ci sa loolu tamit faratale ci julli neuvième bi mooy arafu minhu yëkkati ko jóge ci sujjóot faratal ci julli al intidaalu temmu atuma niinatu ak dal temmu ak dal faratale ci julli soo ko bàyyee sa julli du baax moo tax bu julli bëgg ñu nga ci def ay mouvement yu bare bu matee ñetti yoon rek sa julli day yàqu te mooy boo nee allahu akbar neel tekk bul wokkatu bul woggantiwaat sa grand mbubb bul defaraat sa montar bul defaraat say kaala boo ci def rek bu matee ñetti jëf rek julli gi day yàqu kon allahu akbar tekk rek bul jaayu bul yëngatu bul def dara lu bokkul ci julli gi assalaamu selmal te mooy assalaamu aleykum mooy douzième bi farata ci julli treizième bi mooy al juluusi li salaami toogaayu selmal gis nga boo commencé taaya ba balaa ngay egg ci assalaamu aleykum diggante boobu toogaay loolu mooy farata toogaay boobu mooy farata waaye bi nga commencé taaya ba bi ngay commencé asalaamualeykum diggante boobu sunna la boo nee asalaamualeykum ba mim bi di jeex diggante toogaay boobu mooy farata tartibul faraa yi di toftale farata yi ni mu ko waxee yéene teg ci kàbbur armal teg ci taxawaayu kàbbur armal jàng faatiha eh, taxawaayu jàng faatiha sëgg jàpp ci say wóom yëkkati ko bàyyi ci sëgg bi sujjóot teg si ji ci suuf teg sa bakkan dañ koo sopp yëkkati ko bàyyi ko ci sujjóot temmu dal sëlmal toogaayu sëlmal nga toftale ko noonu faratale ci julli mu mutaabacatul maamuumi imaamahu maamum topp imaamam ci kàbbar ak ci sëlmal ak ci mboolem julli gi yépp maamum dañu bëgg bala muy def dara ilimaan def ko ba pare su fekkee ci kàbbaru armal ba la nag su ko jëkkee kabar kàbbaru armal julli ko du baax bu fekkee sëlmal bi tamit bu ko jëkkee sëlmal tamit julli ko du baax kon du ko jëkk kàbbar du kàbbara ndoog moom du ko jëkk sëlmal du sëlmala ndoog moom yii moom bu mu ko ci def mbaa mu def ko ci moom rek julli ko du baax day xaar ba mu def ko moom yi des nag dafa war xaar ba imaam def ka ba pare mu soog koy def su ko deful nag julli ga baax na waaye bu ko defee doog moom sib nañ ko bu ko jëkkee def loolu araam na kon yooyu mooy juróom fukk yi nga xamante ni si eh, mooy fukk ak juróom benn yi nga xam ni mooy farata tënk na ko ci anam bu neex a dégg mu neex a takk boo xam ni boo ko jàngee tamit même boo ko takkul ci arab bi tamit wolof bi war nga ko cee mën a takk ah. yomb na lool nga takk ko ci anam bii mu ko liggéeyee nii mu ñëw nag ci sunna yi ñu fedd li moom tamit di juróom-ñett tablo bi mi ngi noonu premier ji mooy attakbiratu illa al ula allahu akbar yépp sunna lañu ba mu des kabar bu jëkk ba deuxième bi mooy samia allahu liman xamidahu sunna la bu ñu feddali troisième bi mooy aljahru biral sunna la bu ñu feddali quatrième bi mooy aljuluusu li tasahudil awal toogaayu taaye bu jëkk ba sunna bu ñu feddi la cinquième bi mooy kalimaatu tasahudil awal baatu bu njëkk sunna bu ñu la sixième bi mooy kalimaatu ay baatu taaye ñaareel tamit sunna la bu ñu feddali ci julli asirru yalu mooy wax ci suuf sunna la bu ñu feddali ci julli asuuratu jàng saar walla aaya mu wuutu saar wa loolu tamit sunna la ci julli da tax waykat ni siinaani siinaani jiimaani taaani addu sunni samaani waa yooyu mooy juróom-ñetti sunna yi nga xamante ni si sunna yu ñu feddali